émotion vraiment soxna si bi fort ñun amuñu ko dul président Abdoulaye Wade ñun ñu def suñu cursus politique yëpp dans le parti démocratique sénégalais gis Abdoulaye Wade étant jeune ba nii mu toll tey buñ ko gisee avec le poids de l'âge suñu xol dina jeex waaye ñu di ko ñaanal fan bu gudd ndax at gii mu am te yàlla may ko li moo ko liggéey boppam yàlla def ko ci xolu sénégalais kon nag santaat yàlla rek yàlla yokk ay fanam bàyyi ko sunu kanam ba ñun yéene gi ñu am ci moom ñu mën ko mottali ci barke Nabil Moustapha loore la ñuy ñaan président Ablaye jërëjëf euh, merci madame parce que Wade lu ñu ko defal rek mérité ko parce que c'est un patrimoine ndax li mu def ci Afrique waxuma la Sénégal mais li mu def ci Afrique benn président moo su ko def parce bi boo demee à travers l'Afrique foo dem ñoo ne ana Ablaye Wade di lox ce que Wade on est tous disparus parce que Wade lim man kenn ñemewu ko lim ñeme kenn ñemewu ko parce que pétrole bi ñuy wax pétrole bi lii ñuy wax ci ay 2023 parce que Macky lim dajale dafa lim am dafa yombut Macky dafa amul xam-xam te respecté wul nit parce que li ko lay Abdoulaye Wade defal ci àdduna bi kuñ ko defal ba pare nga def wëññi ko bëgg ko toroxal ci àddunaam dafa jaaduwut dafa wut parce que Macky dafa amul xam-xam parce que boo amoon xam-xam tey ndax nii àdduna bi respecté Abdoulaye Wade ni ko adduna bi respecté moom kenn képp ci Sénégal Afrique moo ko respecté wul ndax li ko waaj a defal jëlee ko a zéro keroog bi yaayam gaañoo bi ñu demee Pikine euh, euh, Fatick dañ toog ba 19 heures gouverneur ñëw ne ko wàdd gouverneur mu ne ko sama kër premier ministre lay fanaan ku la defal lii ci adduna bi nga wëlbeekatu ko fa yéene ko torox adduna àllaaxira waaye nag wàdd yàllaa ko def li ko defal yàlla ko defal ndax wàdd daf bàyyam daf ko liggéeyal loo xam ne ci mboolem këri diine yi waa kër Cheikh Sadou Abi waa kër El Hadj waa kër Sëñ Touba El Hadj Ibrahima ñëpp ku ne rek am na fu mu jaar ak baayam Macky nag dafa xamut parce que xamut te it ñi ko jàppale ay nafiq ñoo ko dara waaye bu doon nit tey waroon nañ ko waroon nañ waroon na xam ne Abdoulaye Wade ci moom mérité wul lii mérité ko waaye nag na xool boppam ndax lii Wade am ci Sénégal beneen chef d'État doo ko fi am moo tax kon nag ñun ñi képp ku di Sénégal maa ngi invité tout le monde. lépp képp kuy sénégalais nañu dem wate ji parce que jëlee fi Macky Sall parce que Macky cancer la ci réew baaxul ndax nit koo xam ne da nga soxor nit ab jullit da daan déglu ndax Macky fii la romb senegal gép dem ca Charlie Hebdo ne maa tey ca Charlie Hebdo laa jëm senegal nga romb fi kër El Hadj Malick kër Sëñ Touba kër Baye ne dégg ca Charlie Hebdo lii mu def nag ci senegal nag yàlla na tey lii du ko yàlla du ko seetaan yàlla dana ko àtteeg Ablaye Wade bu baax a baax a baax ñoom ñi ko trahi ndax kenn ku ci nekk ba mu lay jëlee ci fa nga dëkkoon kenn ci amu ci kenn ku am dàll defar leen ñoom ñëpp ba fii àdduna bi tollu tey ñoom ñëpp ñu war ko waaye nag yàlla ku mën a seetaan la laa tàq suuf si nettun yàlla gëmmentuwut te kenn ku ne sa bés dana mos a ñëw Macky na xam ne dana mos a génn ci pale bi dana ci mos a génn wala dana ci mos génn waa pale palais bii Senghor jaar na fi Abdou Diouf jaar na fi Abdoulaye moom kenn kese moo fi jax ak si Abdoulaye Wade lu ne def ko lu bon lu ne fas yéene ko tooxal waaye nag yàlla gëmut nelawut te lii ma leen di wax nii di soir devant nous suñ borom dana ko àtteeg si Abdoulaye Wade mbokku internaute Sénégal euh, ñu rappelé leen rek euh, tey émotion bari woon na fii si centre bi Abdoulaye Wade doon vode fii tey ci euh, point E muy ancien président de la République nekk en même temps également tête de liste coalition yee wallu Sénégal ñu def intercoalition bu ñu naan yeewi wàllu donc ba muy ñëwee dugg si gis ngeen peuple bi foule bi presse bi tout le monde était là pour euh, xool ni ab Ablaye Wade di voté donc gis ngeen image yëpp ci Sénégal vraiment di jox dig daje di jaajëfal askan bi leen wax ne nañu voté si jàmm ak salaam que la paix règne dinañ jox dig daje si yeneen i endroit aussi ñu dem xool yeneen leader ñu mun leen am jox leen ko fii si Sénégal